moo ñu dajale fii dafay xew-xew bu am solo boo xam ne ci diine ji ak ci euh, njàngum alquran xew-xew bu ni mel daanaka mën nañoo wax ne mësuta am te moom mooy tabaxal génn kër goo xam ne dañ koo jagleel alquran ñu woowoon nag kilifa yu bari yoo xam ne jóge nañ ci ay barab yu fasanti ko ñu ñëw fekke ko euh, yàlla def ci kàttanam liggéey bi nga xam ne euh, moo ngeen fi fekk tey. yàlla def ñu amoon yéene mu nekk juróom-ñaari taax yoo xam ne yi benn bu ci nekk dafa am lu ñu ko jagleel mais ñu gis kilifa yi gisal seen bopp ni euh, comme ñett yi pare na te yàlla dafa dogal la tax ñu jot ko mu ngi tukkee ci mi ngi sababoo ci concours bi nga xam ne at mu nekk euh, Sénico daf koy organiser lëkkaloo ci ak fédération nationale des associations d'école coranique Euh, ci njiital alxaaji Abdoulaye Dia ak sëriñ Moustapha Amadou Wan ñu gis ni kon la nga xam ne lii moom moo ca daan tukkee te ñu daan ko dajale jullit yi euh, yi bëgg alxuraan daan ko joxe loola waras ne koo mën a fexe jëmmal ci ci ci barab loolu mooy sabab bi tax tey jii ngeen ñëw fekk fi taax mii kon ci loolu la la soqi ko yàlla def nag ñu amoon kilifa yu tedd yu fi rot si ci euh, njiital ministre bi nga xam ne moo jiitee moo yore jàng jàngale di Mamadou Talla moom moo ñëw ubbi ko kër gii tamit tey jii dañ naan alxuraan am na kër boppam ngoo xam ne fu waay ñëwoon tey ji jëm ci alxuraan tey jii dañ naan am na kër boppam xam ne mën na la caa dalal te bii moom ñu ngi koy door a gis muy pour la première fois ñu gis ko ci ci Sénégal centre de formation boo xam ne bi dañ cee prévoir huit classes mi ngi fi huit classes yooyu du doon ay ay ay classes yoo xam ne dañuy dañuy wax xale yi ñu ñëw ñuy dugg ak génn di dem ko ñëw déedéet formation lay doon yoo xam ne yi ñi nga xam ne wattu nañu alquran ba noppi lañu envisager incha allahu taala defal leen ay formation de haut niveau yoo xam ne yi lañ doon wuti bitim réew di ko jëggaani ay ay Égypte ak ay ainsi de suite loolu mën nañ koo fexe ba ñu ñu implanté ko fii ci Sénégal te ci daaru quran bi lañ koy mën a. kër gu mel nii musul am si Sénégal suñu waxee kër alquran ñu def ko si jour koor ñu am salle bu mel nii ay salle yu yaatu yu baax yu am ay ordinateur ñu am lu numérique xalaat également enseignants yi ah wax dëgg yàlla loolu suñ ko déggee lu ñu mun mënta def dañ ko war a bàyyi ñëw loolu moo tax président la bi mu ne man demal nga représenté ma nga nuyu ma mbokk yi sëriñ nga encouragé leen et puis nga wax leen nañu ñaanal Sénégal nañu ñaanal Sénégal Sénégal Sénégal de paix Sénégal boo xam ne ñu ñëpp a ko bokk di félicité nag monsieur Dia. comme wax nañu éducation du kenn rek moo ko mun a gérer éducation état bi dina si def man naa si def yéen aussi di ngeen si def waaye soo amee ñoo xam ne ay médecin la ay nit ñoo xam ne dañu am seen moyen ñëw tabax lu mel nii di encourager concours bi boo xam ne concours chaque année mooy def suñu fierté am nañu ay jeunes sénégalais ñu ngi fii si di rivaliser avec des pays arab di am ay concours di gagner et même ren sax encore ki ñu joxe daaw encore prix bi am na lu mu gagné ku ñun ñaar yàlla daan loolu mu mun a continuer di encourager monsieur Dia di leen wax ne nag léegi comme am ngeen fi ay salle yu mel nii ndigal bu ñu am mooy que nañu leen accompagner am ngeen ay jàngalekat nañu leen di former am ngeen di matériel nañu leen di former da ngeen soxla ay matériel ay ordinateur ay logiciel nañu ñëw ñun si éducation ànd ak yéen. parce que ñun xale yëpp lañu ñu war a toppatoo ñii di jàng français ñii di jàng arab ñii di jàng leneen Sénégal bi ñun ñoom ñoo ko bokk donc mënuñu jël rek depuis président la bi fi ñëwee léegi nee na nañu installé ay daara nañu installé ay daara moderne bi ñu ñëw 64 daara moderne la ñu waxoon léegi commencé nañ ko dem nañu di def ay daara yu bëri Covid bi bu ñu ñëwee rek ñaari junni daara lañu ñu accompagné xam nañu loolu lu tuuti la su loo xam ne loolu moo am si Sénégal dëkk boo dem kër boo dem mën nga fa fekk benn école benn village mais ay daara yu bari nga fekk si village bi ñun xam nañu loolu gëm nañu loolu xam nañu aussi Sénégal mënul dem fekk français kese rek la ñu jël dañu war a jël français di jël anglais di jël arabe mais surtout nag l'enseignement coranique la boobu lu am solo la donc loolu moo taxoon président nee ma da ngay bàyyi li nga way li ngay def nii léegi dem nuyu leen ànd ak ñoom félicité leen encouragé leen ñu ñaanal Sénégal moom aussi mu ñaanal leen di leen wax ne bon ramadan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam